doonul loo xam ne bu dogal bi wàccee mën nga ko bañ a ñàkk a danga ko war a def ba keroog beneen décision di génn maanaam du lu ñuy interrompre décision bi la jox da koy appliqué ba keroog beneen décision wu tribunal bi génn maanaam ëttu attekaay bi njëkk atte ci contentieux administratif bi dogal bi mu joxe da nga cee war a tënku ba keroog ëttu attekaay di génne beneen dogal loolu lañ wax ci dogal bi comme nag bu ñu jàppee ni l'État ne l'a pas fait ñenn ñi yenn xeltukat yi dañ naan euh, l'État devient un brigand de la justice dañuy jàpp ni nguur ci boppam tënkuwul ci ah. dogali dogalu ëttu attekaay yi donte nag euh, les voies et procédures ne sont pas du tout épuisées jeexagul kon fii nga xamante ni mooy njobbaxtan gi muy ëttu attekaay bi ñu jàpp ni moo ci gën a kawe muy cour suprême comme son leen di war na indi ab dogal ñuy xaar dogal boobu bu nu indee dogal boobu dafay am ñaari aspect yoo xam ne da nga koy mën a layal ndax bu dee ëttu attekaay joxe na ab dogal tënkuwoo ci bu ëtt attekaay bu mag bi daal di xoolee ni nu àttee li nga xam noonu lay xool ni nu àttee ndax dëppoo na ndax cour suprême du attewaat day xool ndax ate ba jaar na yoon nañ ko war a doxalee bu xoolee attewaat ba na mu demee dogal bu mu génnee bu nekkee en faveur du candidat Ousmane Sonko waa këram mën nañ ci tënku bu doonee le contraire waa këram mën nañ bañ tënku ci décision boobu ndaxam yow nguur yaa leen won yoon ni ëttu attekaay atte na joxe décision qui n'est pas suspensive man tënkuwuma ci man mii nguur war a joxe bon exemple war a tënku ci lu yoon joxe kon bu loolu amee yow yaa wutal yoon ñi nga xamante ni ñi ngay ña ngay taxaw di xaar dogalu ëttu attekaay beneen aspect bi nga xamante ni si lu yombalayal lay doon mooy bu cour bu CEDEAO joxe décision bu wuute bu nekk en faveur de Ousmane Sonko cour suprême joxe doxal dogal mu àndul ak faveur Ousmane Sonko da ngay taxaweewaat daal ne du ñu ko appliquer te loolu ngay jàpp te man mii di wax ak yow loolu lay xaar. ndax damaa gis nguuru président makki sàll ba ñu faloo ba tey lu sedd CEDEAO dogal daan leen ci duñu ci tënku ñu ñu convoqué souveraineté état bi <laughs> te ñu xam ni dañu wax ni euh, convention yi ñuy signé ak ay traité yi ñuy signé maanaam ay ay réew yu bari daal di tënku xaatim ko moo féete kaw sunu droit constitutionnel yi maanaam charte nday réew mi dogalil yooyu ñu ciy jël moo féete kaw bii nga xam ni moo tënk sunum réew hmm. te dañu ni képp ku ko xaatim da nga koo war a doxal ci sa euh, ci sa aqulaay taala maanaam tous les deux parties qui ont ratifié les conventions et les traités doivent l'appliquer de bonne fois loolu li lañ wax kon ku ko deful rek mooy nga ko ba président Macky Sall faloo ci bopp réew mi ba tey arrêté Ousmane Ngom bi waa PDS jëloon bi nu ñàkkee réew mi moom la njëkk a attaqué ñoom ña ko jëloon ca wàllu cour bu CEDEAO am ca dam mhm. état du Sénégal bañ koo appliqué ñu demaat coow candidat bu PDS Karim Meïssa Wade di ñëw. Mhm. ëttu attekaay bu CEDEAO daal di atte joxe ay dogal. am na sax bu ko gën a sori Union africaine ba ca chambre travail des travailleurs des Nations Unies. Mhm. joxe dogal état du Sénégal tënkuwu ci. Mhm. ñu demaat ci coow président xalifa Sall. bi coow li génnee ëttu attekaay bu CEDEAO joxe ay dogal nguuruk senegal tënkuwu ci. ñu demaat ci maître tin attaqué parrainage bii ci ëttu attekaay bu CEDEAO am ca ndam ñu jox dogal bi Sénégal tënkuwu ko moo yow looy xaar ci bu joxee dogal ci président Ousmane Sonko te ñële fanu tolloon nguur gile ba ba ba nguuru Sénégal ba ñoo na tënku ci loolu noonu ñoom ñii tey foofa la leen président Ousmane Sonko bi le kon loola mën nga koo jàpp li nga xam ne nag mooy li rafetul mooy mënuñu am droit ci sunu réew mu am lu koy càllale gu koy doxal incarné par de très bon magistrats muy la justice bu am séparation ak pouvoir exécutif ci lu wér nga continuer doxal ya nga xam ni mooy tënkoo ca turbi mooy tab bàyyi ko ca tribunal ñëw yow nga mm-hmm. bañ cee tënku loolu ci réew mu mu am dafay tàmbalee créer problème dafay tàmbali di jaaxal nit ñi am mm-hmm. ñëpp danoo war a tënku ci lu justice doxal ndax justice dafa am nu mu tëddee noo xam ni daf la may ay escalier daf la naan bu ma la àttee fii d'accord mën nga dem appel wala nga dem recours boo fa jógee mën nga dem file kon nag lépp lu mu tàbbal ci dogal nañ ca tënku ñiy continuer seen procédure continuer ko ba beneen dogal daal di wàcc loolu mooy li nga xam ni tey jii moom la ñu war a tënkoo mhm. moom la ñu war a xaar ci loolu lañu war di dox pour taar pour Sénégal taaram bi nga xam ne daf ko yàgg am sur la démocratie et l'application de l'état de droit bi nga xamante ni moom la ñu am moom la ñu xam àddina bi nawee ñu ko Afrique nawee ñu ko muy continuer di doon xar kanamu Sénégal ah. ndax te it ci nguur yi fi mës sa jàll yépp CEDEAO dogal bu mu tàbbal ca ñoom la ca ëpp gis nañ ñu jëfe ko waaye njiitu réew président Macky Sall ci kayam bi mu tàmbali 2012 ba fii nu toll lu ëttu attekaay boo xam ni convention la wala traité bu Sénégal signé dogal bu mu jël daal di koy teg ci kaw ndodd état du Sénégal état du Sénégal du ko hmm. appliqué. li nga xam ne nag mooy li ñu naqarlu mooy organisation yooyu dañu amul kartanu imposer ay sanctions réew yi nga xam ne dañ ci bokk ba pare tënkuwunu ci loolu. très ndax bu doon am na ay sanctions yoo xam ni nu ko mën a appliquer tous les états. qui sont brigands de, des décisions de, euh, euh des conventions et des traités qui les lient bu ñu ko deful ñu appliquer leen des sanctions yaakaar naa kon kon danañ ca mën a danañ ca tënku wala bu ñu ko appliqué wul daan yooyee daal di am ci ñoom mm-hmm. waaye nag war nañu war taxaat ay CEDEAO daal di càmbaraat que tous les présidents yi nga xam ni ci seen ay décision yooyu noonu la génnoon na ñu bañ ko appliquer ëllëg ci biir bu ñu jeexalee seen fonction organisation bu ñu mën a dem ñu mën a déclencher des campagnes envoyé des ambassadeurs ñuy siéger ci bërëb yooyu ba tax ñooña du ñu leen mën a jox yeneen yeneen ndomba tànk ginnaaw bi ñu jógee ci seen bopp réew yi ndax ñàkk tënkoo ak li nga xamante ni si yoon moom la doxal te ñu te ñu salfaañ. très bien président. <laughs> sa réaction ci <laughs> bon sama réaction mooy. Euh, je pense que Mbow wax na lu am solo le ñu ngi koy xaar suba mais déjà ministre de la justice bi mu demee assemblée ci pencu ndaw réew mi. waaw mais déjà wax na ci décision boo xam ne génnagul. su fekkee ni ñun. loolu nag ñoo ko sañ. waaw su fekkee ni dañuy xaar le 17 moom ministre de la justice mi nga xam ne euh, lépp loo xam ne dafa génn xëy na ci. décision de justice moom moo war a jiitu ci taxaw ñu appliquer ko moom ci boppam mu anticiper ne lu génn CEDEAO liéwul Sénégal je pense que y' a pas grand chose à attendre de la CEDEAO hmm. loolu moom vraiment mais est-ce que est-ce que du jar génn CEDEAO en fait pour man nag pour man nag il parce que amul sens en fait. mais pour man sax c' est la CEDEAO qui doit être repensée. parce que au delà sax ay décision yi nga xam ne peut être intervenir na Sénégal te sëñ Saliou léegi lim lépp. de de de Karim Wade à à Ousmane Sonko mais am na yeneen problème yoo xam ne en Afrique aussi gis nañ tout récemment ak euh, coup d'état yi am. bu ñu demee ba bu ñu demee ba di leen di tuddee CEDEAO des présidents. des présidents xam nga y' a un problème waaw ah ah, tout récemment coup d'état yi gis nga la CEDEAO a essayé de prendre des décisions mais jàllul finalement dañoo mujjee dellu ginnaaw. Mm-hmm. donc euh, voilà est-ce que c'était pas prématuré ñu jàll pour man waroon nañu mën toog rek ci aspect économique yi. peut-être ba ci kanam liggéey ko ba nga xam ne état yi dinañ ci gën a gis seen bopp ak seen intérêt ba nga xam ne suba suñu tegee peut-être euh, ay mbir yoo xam ne dafa laal justice état yi aussi et puis ñu am moyen aussi yu ñu contraindre état yi parce que justice aussi c'est ça. su fekkee da ngay jël ay décision te amuñu benn moyen de contrainte aussi état yi loolu tamit amatul sens. Mhm. ça veut dire que est-ce que sax population yi di di demati CEDEAO sax di fa kalaame état est-ce que amatina sens. pour man lu ñu war a xoolaat la te loolu nag Sénégal je pense que wax nañ ko waxaat ko décision yi fi